ñu sant leen mbokk yi gërëm leen ci seen ndax àndax ñun dimanche bu jot fii si rajo Rewmi FM tey nag émission gox bi am euh, fas yéene dalal rek ki nga xam ni moom moo di docteur Cheikh Dieng ci docteur nag la ñuy yem parce que yeneen facette am na ko waaye fa la ñuy commencé tàmbalee docteur ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la sant itam di la gërëm ci ni ñu nangulee invitation bi. Mbemba maa ngi leen nuyu di la ziare bu a baax di am kontante. tey ñëw ci fii ci réew mi FM. Mhm. pour partager sunu expérience ak ak waa Sénégal gépp. Mhm. donc ci wàllu thèmes yi nga xam ni dinga nga ko mhm. di nga ci ñëw bu ci kanamee. incha may nuyu di ziare bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne tamit auditeurs yi nga xam ni ñuy déglu. donc euh, muy waa Jidda Thiaré kaw muy waa département de Pikine muy waa Sénégal gépp. ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax di am kontaan di wuy si ci seen euh, woote ci beneen fànn bi ñu ciy dalal itam Moussa Diakhaté xëy na ci làngum politique bi leen ko gën a xam ne waaye tey Moussa def fi ñëw tey ci turu EMAD mu di entente des mouvements association de développement Moussa ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. Mbemba maa ngi lay nuyu bu baax yow itam ci invitation bi wax nga dëgg <laughs> euh, mbaxanam politique mi lañ xamee waaye dañ koo teg a ndigam. <laughs> nekk ci xeexu coronavirus bi. <laughs> Euh, ñëw ci turu EMAD. ni nga ko waxee léegi di ONG bu mag nekk ci xeex bi. di nuyu ki nga xam ni itam fi laa ko fekk. naam ñoo bokk langue politique gi. waaye moom dañoo bokk mbaakol. bokk Serigne Touba. <laughs> bokk le président Abdoulaye Wade. <laughs> muy nag suma mag. suma mag bu baax itam ma koy revendiquer ca kaw. di docteur Cheikh Dieng. di nit ku baax. kon itam di am kontante. di nangoo bokk ak moom jotaay ndax euh, ndaw su ko yàlla may occasion mu dajeek ay kilifa yu am xam-xam ñu bokk jotaay na ca rootee di ñaan ndaw ñëpp nag ñu déglu ko. <laughs> Euh, ak xel mën cee jëriñoo. ngir xeex Covid bi jàpp ni daal EMAD. te mu ngi lay yónnee nuyoom. à travers le président Abdou Khadre Djeylani. ko fay bu baax ak tous les relais yi nga xam ni ñu ngi à travers Sénégal. am na solo kon waxtaan bi dañ koy dooree rek ak situation bés bi tey li nga xam ne nag moom moo jëm ci neuf yi nga xam ne def nañ ko cent cinq yi ñoom ñoo ñëw positif quatre vingt quatorze cas contact la ak onze cas communautaire ñoo am ci nag ñaari décès buñ ko xaymaa rek semaine bi ñu ngi am vingt huit décès buñ ko boolee mu mi ngi fii et ça persiste monsieur docteur lan moo ci sa kàddu gu njëkk ci situation bés bi. mais jërëjëf balaa ma dugg ci tontu bi ma ma am euh, plaisir tamit nuyu moo jeune frère. Mhm. Moussa Diakhaté donc euh, wax wax nga ko léegi ñu gën koo xam ci porte parole. boo ko gis-gis. mais mu toog fii en tant que EMAD toog fi en tant que communicateur. EMAD mhm. moom bokk na si ñi nga xam ni donc ci boobu ONG moo yor seen communication. Mhm. donc di ko def avec beaucoup de euh, compétence et beaucoup de beaucoup de cœur. ma am plaisir tey donc tooga moom ci rajo bi. nga ñëw léegi ci bilan wu journalier. bu coronavirus bi. muy wane ni ma bi. mi ngi gën a law. mi ngi gën a dem ci kanam. jàngat bi ñu ciy def mooy ni cas contact yi. xañ na bari na. Mhm. mais ça professeur Seydi disait toujours que c'est une mhm. mais cas communautaire yi ñu gis ni chaque jour léegi dafay jéggi dayoo day jéggi dayoo parce que boo amee fukki cas communautaire tey am nañu onze mhm. mooy ne onze personnes yooyu pendant quatorze jours ñi ngi dox yor maladie bi walla ko ñi ñu jëflanteel ñëpp ñooñu commencé nekk ay cas contact ma ne kon pendant quatorze jours il y a eu des milliers et des milliers de personnes yu onze personnes yooyu euh, wàll maladie bi mi hmm. wane ne kon c'est une maladie boo xam ni wax fa dëgg yàlla law na bu baax a baax Sénégal hmm. ñu war ci tiit nag ñu war ci tiit parce que xañ na c'est le taux de létalité hmm. maanaam ñiy dee ci maladie bi bariwul wante maladie bi dafa am danger ci ñëpp ñi nga xam ne dañoo am li ñuy wax ay corps morbidité mooy ñi nga xam ne peut-être am nañu asthme am nañu am na yeneen façon moom yeneen façon feebar yoo xam ni maladie bi mën na leen a sonal mais dans le même temps li tax ñu war ci tiit mooy ni relâchement bi nga xam ni gouvernement bi daf ko indi ci mesure de sécurité yi mu jëloon daf askan wi daf ko méngaleel ni maladie bi léegi assimilé nañ ko euh, amatul or maladie bi tey la wàllu gën a ay muy ni kon il faut que ñuy continuer du communiquer ak population yi que mesure barrière yi nga xam ni euh, ministère de la santé digle nañ ko professionnel de la santé yi digle nañ ko yooyu ñu gën cee bàyyi xel gën koo wéyee mhm. ñu gën a yokk daal euh, li nga xam ne mooy matawaay surtout ci contexte bi nga xam ne ñu ngi jëm semaine prochaine ci ouverture classe d'examen yi ah, mu nekk loo xam ne véritablement man euh, du ma jóg ci di ñaax askan wi ci ni yenn ci mesure barrière yu simple benn ci mooy ñuy sol masque di ko systématiser te di ko sol solin bu baax parce que sol masque baax na wante bu dee booy wax da ngay dindi masque bi parce que daf lay gene bu dee boo nekkee ci xew da ngay dindi masque bi alors que foofu la danger bi ëppee. Mhm. véritablement il faut ñu yokk communication bi. Mhm. ministère de la santé yokk communication bi. Mhm. ci le respect des mesure barrières. ñu yokk également communication bi ci raxas loxo yi parce que loolu aussi parce que mm-hmm. saafonte bi mm-hmm. mel na ni léegi gën naa ëpp ci nit ñi nit ñi nuyoo mm-hmm. joxe loxo te véritablement euh, mesure barrière yi moom waruñu ko bàyyi bàyyi benn yoon dinañ ci ñëwaat léegi wax euh, Moussa Diakhaté ci euh, waa emat rek yéen itam tey point du jour bi naka ngeen ko gisee ci li nga xam ni mel na ni men question bi la rek jàngoro bi kon mi ngay wéy waaw mu ngay woy te ni ko docteur waxee léegi lii lëmbe réew mi mooy cas communautaire yi dans un langage simple damay wax ni soo amee cas communautaire la réponse doit être aussi communautaire paradoxe bi ci am nag mooy nii bi ñu téye nit ñi seen kër yi dañoo gisoon sécurité bi génn farlu lool keroog bi ñu libéré nit ñi mu mel ni dañoo xaw a bàyyeeku bàyyeeku te comme ni ko docteur waxee ki ko yor mu ngi koy doxee ba keroog ñu koy gis moo tax ñu war a gën a góorlu ci communication bi ci sensibilisation bi waaye aussi ñu bañ a juum parce que boobu ba léegi état kanu yi muy utiliser jàpp naa ni doyul jàpp naa ni war nañu gën a wàcc war nañu gën a wax war nañu gën a jàppale xam nga joxe dund nit mënu cee dëkk waaye wax ak sa askan duñ ci jóg tëj nañ yenn jàkk yi imaam yi prêtre yi bàjjanu gox yi lan la état def concretement pour que ñu mën a continuer la sensibilisation de proximité parce que li fi des rek moo yeeyaat nit ñi fexe ba ñu gën a bàyyi xel ci réflexe yi nga xam ne ni buñ ko defee am nañ yaakaar lool ni feebar bi dinañ ko mën a tënk waaye fekk ñu ngi bàyyi ku ne di dem mhm. boo demee ci garage yi boo duggee ci bus yi boo duggee ci taxi yi boo duggee ci clando yi pour ni toll masque sa problème la kon ma jàpp ni mbir mi wàllu communautaire da cee am solo lool lool lool taxawaayu aussi kilifa yi ci gox yi da cee am lool lool ndax bi feebar bi génnee mhm. euh, naam li ñuy def baax na mhm. waaye bëri na ci puukare gu ci am lool itam woo télé yi dajale ñaari ñaari saako ceeb ñetti dëwlin yaakaar ne muy mbir mi alors mooy fexe yow kilifay gox bi. Mhm. ba sa askan say ndaw benn nga mobiliser leen. Mhm. ci xeex bi. soo leen mobiliser ba pare ñu fexe mën dem wax ak seen i askan. Mhm. EMAD nag foofu la taxawee. moo tax aar. aar ànd aar aarlu mooy projet bi nga xam ne dinañ ci ñëw ci kanam mooy la communication de proximité bien sûr l'approche communautaire pour que ñu yee nit ñi ñu soppi jikko yi ndax comme mu ngi fi te mënta dem foog ñu soppeeku pour mën a dund ak moom waaw mu nekk ponk bu am solo alors ñu bari dañuy citer Jidda mairie Jidda Caaroy kaw comme exemple ba mbas bi ñëwee ba léegi jël nañ ci ay matuwaay yu bees monsieur le maire tey fii est-ce que mën nga ñu wax ni ba jàngoro ji duggee ba tey yow ak say waa euh, ñi nga xam ne ñoom ñu waa commune naka ngeen jubloo ci xeexu coronavirus bi. merci dinaa ci sawar communiquer partage ak sunu yeneen mbokk maire yi. Hmm. ak waa Sénégal. parce que stratégie bi ñu tëral si ñaari tànk lay dox benn ñu mën ko wooye activité ñaar ñu mën ko wooye boole askan wi dès le départ biñ gisee parce que Sénégal am nañ chance Afrique am nañ chance que maladie bi depuis le mois de décembre la génn en Chine on a u décembre janvier février donc ñetti weer ba le 2 mars mu doog a dugg Sénégal. donc pendant deux mois am nañu temps wu ñun au niveau du Sénégal. observer li nga xam ne xew na Chine xew na Europe balaa muy egg si Sénégal ñu ne kon il faut que ñu actif loolu am na ci loo xam ni ministère de la santé wax fa dëgg yàlla. dox na ci ay jéego yu ñu war a rafetlu. mooy ni balaa maladie bi ñëw. teg nañ benn comité national. de gestion de la crise ah ñun ñu ñun tamit ba ko au niveau central ministère def ko ñun dañu xaar ñu wax ñu ko parce que maladie bi ça se passera au niveau des communes au niveau des familles hmm. kon ñun ñu teel a teg également un comité communal okay. de gestion du Covid 19 boo xam ni dañoo xool ni les principaux porteurs d'enjeux mmh. au niveau communal muy bàjjenu gox yi muy président délégué de quartier yi muy ñi yor daara yi muy ñi yor centre de santé yi ñu ñu féete ci wàllu technique bi muy centre de santé ak service d'hygiène muy également donc le un représentant des jeunes le représentant des femmes boole si ñëpp daal ñooñu ñu ànd ak le bureau municipal parce que hmm. la difficulté hmm. situationnelle mooy ni mënoo mënoo ko def mbooloo mu rëy parce que maladie bi justement li muy bañ mooy booloo donc les principaux porteurs d'enjeu la ñu woo ci au niveau du euh, bureau municipal au niveau avec le bureau municipal mhm. ñu définir ensemble une stratégie de lutte boo xam ni service d'hygiène mhm. ICP yi mhm. ñoom ñoo ñuy conseil donc ñu toog donc première phase bi nekk la mise en place du cadre institutionnel mmh. donc après ñu ni quels sont ñan ñoo euh, lan mooy les facteurs de risque lan mooy les endroits à risque endroits à risque yi mooy fi nit ñi di booloo évidemment parce que maladie boo xam ne la ah li favoriser propagation mooy mbooloo mi mhm. boobu tëjaguñ jàkka yi mhm. ñu ni jàkka yi kon président bi nga xam ne moo jiite imaamu jidda caare kaw yi hmm. daa bokk ci comité bi yow dañ lay chargé mission ñu ni tamit daara yi hmm. ñoom am nañ kuréel ci biir jidda caare kaw président ba ñu boole ko kon ci comité communal bi ñu ko yow tamit yaay ñuy doxali ci wàllu daara ya hmm. ñu ni euh, garage kalando yi ñoom tamit ñu boole leen fekkoon nañu boole leen avant am nañ président. ñu boole ko ñu ne ko yow dañ lay yóbbu nañ la yónni. tamit si say naataangoo euh, dawalkatu. chauffeur chauffeur chauffeur kalandoo yi chauffeur kalandoo mhm. donc ku ci nekk. Mhm. mi euh, donc ñu ànd ak. ak tailleur yi. le bureau municipal. Mhm. donc première phase bi déjà. c'était essentiellement une phase de sensibilisation. ak mairie génne ci. Euh, alalam jox leen ay moyens de protection donc ñu commencé dem ci daara yi parce que ay xale lañu c'est des c'est une couche particulièrement vulnérable bien sûr peut-être amuñu borom daara yi ku la xam ne amuñu ay moyens ñu ni kon ah, comme que situation bi demee na nii nañ yónni euh, des agents municipaux ñu ànd ak président daara yi ànd ak président tamit euh, imaam yi. parce que foofu la communication bi gën a yombee. Mhm. ñu def une tournée dans l' ensemble de la commune. Mhm. xool daara yi nga xam ni ay doomu jidda caare ko ñoo ci nekk. Mhm. fa dëgg yàlla heure bi nekkul heure bu daara mën a ubbi. parce que ñu ngi tëj école yi kon il faut que daara yi suivre ñu tëj daara yooyu. mais am na bari daara yoo xam ni ay doomu étranger ay doomu ñu dul waa Sénégal. walla ñu dëkk Sénégal mais dëkk ci région yi ñoo ci nekk. ñooñu également ñun il faut ñu confiner leen. ñu toog ci seen kër. pour ça mairie bi dégager également des moyens. des moyens en termes de dons alimentaires. des moyens également en termes de matériel de d'hygiène. ñu jox ko borom daara yi jàpp ñaan leen te waxtaan ak ñoom ba ñu confiner seeni taalibe euh, au niveau des garages. ñu ne ay lieux regroupement lañu. donc bi ñu waxtaanee ak daara ak garage yi au niveau de chaque garage ñu teg fa ay raxaskaayu loxo donc muy ay bidon deux cent litres yoo xam ni on avait opté ñun pour eau de javel parce que eau de javel eau javelisée dafay rey microbe virus bi donc ñu teg fa ay o di leen fournir en eau de javel ñoom ñu koy entretenir mais et ça ce qui est intéressant ñoom seen bopp ñoo am imagination wu. Mhm. wut ay haut-parleur comme yi yor ci marché yi. xam nañ ci enregistré benn bande son. Mhm. muy tourner bande son boobu di invité képp kuy jël euh, kalandoo mhm. na nga jaar ci bërigo bi nga raxas sa loxo. ba pare balaa ngay dugg ci kalandoo bi. chauffeur yi également di ko fàttali nit ñi. kasaalika noonu. la ñuy def ci marché yi. entrée marché. sotti marché muy ñetti marché yi ñu am yëpp tamit ñu defa ay bërigo pour nit ñi donc di mën a raxasu. Mhm. mais ñu sensibiliser waxtaan aussi ak délégué marché yi. parce que ils ils étaient aussi membre mhm. donc du comité. pour que ñoom ñu jaar ci commerçant bu nekk ci place am. Mhm. donc yow commerçant bi. sa bopp. nanga am butéel ndox boo xam ne da nga koy javeliser. ñu jox leen aussi ko nu mu tudd euh, mode mode de Euh, mélange. maanaam norme mélange bi nga war a def ci bitéelu. pour mun a aaru ci jàngoro bi bi. Mhm. mu nekk lan mooy tolloog huit pour cent. Mhm. de javel boo ko def ci bërigo bu mag bi wala boo koy def ci bitéelu un virgule cinq litre bitéelu kireen bi. Mhm. donc ñu gis ni la plupart des commerçants du mën ne ñëpp. mais ñi ëpp ci marché yi. adopté nañ ko. yor seen butéelu eau de javel. donc di ci raxasu. Mhm. Euh, très euh, de manière fréquente. Mhm. chaque fois bu ñu laalee xaalis parce que loolu. Mhm. dafa leen di aar ñoom. dafay aar également ñi nga xam ni. ñoom la ñuy jëflanteel ñuy ñëw ci marché bi. beneen endroit bi nga xam ne aussi nekkoon na euh, un endroit névralgique. moo doon les mosquées parce que boobu tëju guju mosquées yi. mais balaa ñuy tëj mosquées yi. ñun jaar nañ dans l' ensemble des mosquées. de la commune de Djeddah Thiaroye Kaw ñu jox leen rasax raxasukaayu loxo. sensibiliser leen surtout parce que li ëpp solo. du rek joxe moyens. sensibilisation mais c'est la communication qui va avec ces moyens. ak aussi kii porte communication bi. parce que président euh, président imaam yi. parce que imaam yi dañoo am kuréel. ki leen jiite. quand mhm. même nekk kilifa. imaam yëpp mën a reconnaître. Mhm. kilifteef ak voix bi nga xam ne am na ko. moom la ñu boole ak des techniciens de la mairie. ñu àgg dans chaque mosquée. sensibiliser imam bi pour que imam bi dans dans la mosquée. nekk lu porte-voix de la de la communauté di bàyyiloo xel nit ñi. ci kuy dugg ci jàkka ji. yii mooy mesure barrière yi nga xam ni. war nga ko respecté loolu mu nekkoon aussi élément boo xam ni amoon na solo ci lutte bi loolu moo nekkoon donc la deuxième phase de la lutte après après euh, après le le le cadre institutionnel dinañ ñëwaat ci beneen ponk bi dañuy wax rek Moussa kon euh, mel na ni euh, xeex bi mairie yi ñoom itam dañ ko jëlal aakimoo ko itam seen bopp bokk ci xeex bi te kenn xaaruñu si kenn waaw am na mairie yu ko aakimoo mhm. parce aussi daanu dajul suuf te séddale bu ñëpp tolloo am ñu gedd seen cër mairie bu mel ni li docteur Cheikh Dieng wax am na mairie yu ko def am na mairie yoo xam ne itam nag fañ leen doon xaar bari na taxawee wuñu fa ba tax na ku mel ni docteur Cheikh Dieng ku jar a jaajëfal la parce que ñun en tant que EMAD buy ONG di jublu ci wàllu développement mhm. dañuy saytu parce que développement jikku la mhm. changement de comportement la mhm. mais développement aussi aptitude la maanaam nangoo boole nit ñi nangoo déglu waaye aussi farlu ubbeeku ubbeeku moo tax ñu mel noonu c'est important ku mel ni docteur Cheikh Dieng EMAD dina mën a liggéey ak moom donte EMAD dafa ànd sur ce projet là 3A. ak plan ànd aar ak plan international. Mhm. bi nga xam ne mu ngi yëngu ci lépp loo xam ne ni jàppale ndaw ñi la rawatina xale yu jigéen yi. Mhm. di yëngu ci jidda caaray kaw. Mhm. waaye li ñu gën a sawarloo en tout cas sur sa projet là pour ñu gën a mën a dem jidda caaray kaw. mooy melokaanu maire bi. maire la buy déglu askanam. maire la bu jox baat ñim ko bokkal. maire la bu farlu bu ubbi ay buntam. Okay. ku mel noonu defe naa ni képp kuy organisme wala ONG de développement mhm. rawatina sawar nga dem sawar nga dem liggéey moom te mhm. gi mooy keroog bi ñu demee di waxtaan ak moom mhm. euh, daf ñu ubbil ay buntam amul audience dañ ko le président Abdou Khadre daf ko woo rek mu ne ko mardi je vous reçois pour wane encore ni war na servir ñi nga xam ne askan we leen jox seen baat mhm. organisme yi jóg bëgg a jàpp ci liggéey bi mhm. ñu woyofal leen mbir yi ni mu yombee ci am ci ci ci jëdd caaray kaw nag mhm. j'avoue ko yombeewu ko ci ñeneen parce que jéem nañ ko feneen ñun présentement ñu ngi basé wu au niveau de Dakar Plateau si wax na ko voilà effectivement li ñu am jëdd caaray kaw amuñ ko sunu commune te te te bu nu sañoon itam nag euh, autorité yi nekk sunu commune meloon ni di docteur Cheikh Dieng waaye terewul emaat li ci cëram ak wàllam mooy askan wi OCB yi ñu ngi liggéey ak ñoom di leen former dinañ ñëw bu ñëwee ci programme 3A bi pour gën ko expliquer mais daal di diir que ni mhm. li docteur wax mhm. nit ñi nañ ci bàyyi xel au delà ci mesures yi mhm. mais defin bi ndax ba léegi newul man boo déggee même ci wax dinaan ñu ngi sa diir dire la le discours utilisé ma ne ni kuy boole nit ñi la te ni mu ko defee defe naa ni bu ko ñëpp defee ni ñi amaana ni mbas mi dana gën a wàññeeku mbas bi di gën a dem Euh, yow nga indi boole tailleur yëpp euh, teg leen ci benn bërëb euh, lan ko jublu ci loolu docteur. c'est important li mu wax li sëñ Moussa wax léegi. Mhm. faut dire que façon mbas yu mel demee nii. Mhm. il faut que communauté bi. Mhm. def ko mbiru mbiru boppam. parce que du maire mooy jóg. mën ko régler. du ministre de la santé mooy jóg mën ko régler. du président Macky Sall moo jóg mën koo régler mhm. ce qu'il faut c'est ñu mën a sensibiliser mhm. ànd ak askan wi askan wi nag c'est à travers mhm. des porteurs d'enjeux pour que ku nekk mën a jàpp ni lii sa yëfu bopp la nga indi ci sa sa sa participation maa ngi lay wax léegi baril yi ñu teg ci marché yi mais noonu lañ ko defee ci quartier yi dañoo jël fépp foo xam ni yaakaar nañu fi ay nit yu bari. Mhm. nañ fa romb. Mhm. muy les les grands axes. wala mhm. ay places publiques. mais dañoo discuter ak ay jeunes yu dëkk ci quartier ba. responsabiliser leen. leen écouter mën nañu indi moyens wante mairie du jóg bis bu nekk. di xool ndax bërigo deux cent litres bi ndox mi jeex na wala jeexul. mais il faut que ñu am jeunes yoo xam ni. dañ koy def si mais eh, les jeunes évidemment ils n'attendaient que sax y a même des gens yoo xam ñoo jóg yi ñëw vers la mairie. Mhm. ni ñun dañoo bëgg a def dara ci sunu quartier. loo ñuy jàppale. Mhm. man leen ah loolu ge euh, wokkatu bu mhm. parce que ñun ñu bëgg mooy responsabilité jóge ci ay groupe organisé. pour seen quartier. donc ni ñu ko defee ci marché yi defee ko ci garage yi. noonu leen ko defee dans les quartiers. am association de jeunes bi ñu waxtaanee ak ñoom. ñu ñu rangu. jël matériel de protection bi mais aussi rangu di jël sensibilisation bi. def ko seen yëfu bopp def ko seen yëfu bopp. donc la mairie si euh, bi muy nekk. Mhm. position bi muy nekk. Mhm. mooy position di joxe peut-être ay conseils. Mhm. à travers yoo xam dañ koy jëlee ci les services techniques. parce que ñun nous pas des techniciens de ça. non non y a les qui sont nos conseillers techniques. Mhm. donc on les appelle on appelle les porteurs d'enjeux ñu créer communication bi ñoom nekk ñu nekk donc des relais de la communication au niveau des populations mais des relais égalements de la gestion des moyens. Mhm. au niveau de la euh, au niveau des populations. Mhm. donc au jour d'aujourd'hui am nañ am nañ près de soixante quinze barils. de deux cent litres yoo xam ni dañ ko disséminer à travers la commune dans les endroits stratégiques ay association de quartier mhm. yor ko di ko gérer évidemment ils n'ont pas les moyens chaque fois su euh, su eau de javel bi jeexee ñoom ñu ñoom ñu ñoom ñu approvisionné ko mhm. donc il s'adresse à la mairie mhm. mairie dégager moyen eau de javel bi pour jox leen ñu koy mën donc entretenir barigo régulièrement c'est de la même manière donc la ñu responsabiliser les tailleurs mmh. parce que on a ponk bu am solo la parce que ñu bari ñu ngi ci jéem a euh, ñu ngi la ci roy yow monsieur le maire yow Djiddah Thiaroye Kaw parce que dañ ne danga nga boole tailleur yi dugal leen ci benn bërëb loolu naka la ñëwee initiative bi. waaye ba euh, une association de tailleurs. Mmh. ñu ñëw wax wax dëgg yàlla jël spontanément deux cent masques defar ko ci seen atelier. Mmh. ñoom monsieur le maire gis nañ. effort bi ngay def ci lutte contre le Covid. Mm-hmm. mooy di joxe ay vivre ci daara yi mooy di joxe ay raxasukaayu loxo ci marché yi ci grande artères yi ak ci jàkka yi. Mm-hmm. dañu ñëw jàppale la deux cent masques yi pour nga jàpp pour nga jox ko askan ma ne ma ko bu baax a baax nag. Mm-hmm. parce que ça montre aussi que Sénégal y des gens de bonne volonté. qui demandent qu'à aider. mais vraiment dama bëgg. félicité bu baax a baax. l' association des tailleurs de Djeddah Diack bi jël boobu initiative. Mhm. mais man leen bon d' li ngeen def rafet na. Mhm. mais nous sommes une population de près de euh, deux cent euh, près de en fait vingt vingt mille ménages. Mhm. près plus de cent vingt mille habitants. deux cent masques baax na. wante ñun mairie dinañ gàddu defar cent mille masques. et moi besoin de vous. ñu ne monsieur le maire vraiment lii neex nañu dinañ la ci gunge. <laughs> gratuitement. c'est vrai seen intention rafet na. Mhm. mais dinaa ko élargir duma ma yem rek ci yéen. parce que les tailleurs font partie également de ñi nga xam ni dañoo gën a impacté wu. Mhm. parce que ñi ngi doon jëm. ci mhm. ay fête. bien sûr ñu tëj tailleurs yi. ñu tëj fête yëpp. donc ma leen donc. démarché waxtaan leen ak yeneen tailleur yi nga xam ne ñëpp peut-être liggéeyuñu. Mhm. moi je veux aider les également pour aider la population de Djeddah Thiaroye okay. donc nous avons ñoom bi passé information bi. Mhm. y a eu cinquante tailleurs mhm. donc ma transformé la salle de conseil municipal en un atelier. nga def ko atelier tailleur. def ko machine ñun ñu dem au niveau du ministère de la santé jël norme technique yi nga xam ni moom la ñuy defaree masque yi donc ñu indi matière première bi mañ leen nag wax fu dëgg yàlla am ngeen volonté mais du nekk liggéey benn fan wala ñaari fan hmm. liggéey sur un mois la parce que cent mille masques dafa bari te kon mënuma leen liggéeyloo pendant un mois hmm. pare di leen merci dinañ fixer benn prix boo xam ni donc parce que aussi il faut gérer la productivité hmm. ku defar benn masque confection bi mairie yi dina la fay cinquante franc. ok nekk cinquante franc. masque bu nekk. mairie yokk cinquante franc sachant que mairie bi mooy jënd. la matière première. mooy le façon tissu bi nga xam ni. moom la ministère de la santé wax façon donc ak. jël également un maître tailleur boo xam ne mooy def coupe beeg yëpp. moom aussi mu taxaw vraiment ci taxawaay bu rafet ah taxawaay bu rafet. tailleur yi am ci engagement nag. am ci engagement et c'est ça qui m'a plu. Parce que des gens qui étaient prêts à travailler gratuitement pour leur communauté. Mhm. Parce que vraiment, ça faisait suite à, à, fait, à la dynamique mhm. de nationale bi nga xam ni mhm. le président Macky Sall avait réussi à créer ça au niveau de la toute la classe politique et toute la classe économique ba gis nga sax boobu les les transporteurs dañoo indi woon gratuitement seen offre au niveau du ministère euh, mm-hmm. du développement communautaire. Mm-hmm. pour ne ko vivre yi nga yóbbu ci àll bi. ñun nous mettons à disposition nos camions gratuitement. Mm-hmm. pour mën a jàppale parce que. c' est l' élan national. moo ñu moo ñu amal solo donc. bi ñu ko defee noonu. ñu commencé di liggéey tailleur yi di confectionner am ñi ñi def coupe ñi di def ñaw bi ñi di def passé bi et cetera a mu nekk liggéey en chaîne bu rafet. mais li ci am solo. mooy des mooy ces jeunes là. gis nañ seen bopp après. Okay. parce que chaque jour quand nag ku ci wàcc. Mhm. di nga wàcce diggante sept mille cinq cent ak dix mille francs. Mhm. mu nekk loo xam ne aussi. Mhm. économiquement. jàppale nañ leen te ñun ñu prévoir ko aussi. ci suñu budget à travers donc des ré des réaménagements budgétaires yi ñu defoon. fi may daanelee. mu nekk également au niveau de la distribution de ces masques. mu nekk aussi une phase bu am solo. parce que ça on a mobilisé les jeunes. Mhm. di l'idée c'est pas seulement ñu joxe masque yi mais l'idée c'est de l'accompagner avec un discours de sensibilisation. Mhm. mais fexe également doo ñëw rek sànni ko ci délégué de quartier bi. Mhm. les porteurs d'enjeux au niveau de la commune de la, du quartier. Oui. parce que distribution quartier par quartier lañ koy def on a pris notre temps. quartier par quartier sur les 66 quartiers de Djeddah Thiaroye Kaw chaque jour ñu programmer un un quartier le matin un quartier l'après-midi. Mhm. bu ñëwee dañu waxtaan ak le délégué de quartier les bàjjenu gox yi nekk ci quartier bi les associations de jeunes yi nekk ci quartier bi. Mhm. yëkkati mille deux mille ou trois mille max en fonction de la taille du quartier. leen fexe leen ba. Mhm. ku ngeen koy jox ngeen wax ko nan la ñuy solee masque lan mooy solo sol masque. lan moo tax ñu war a sol masque. donc assurer une démultiplication mhm. donc de la sensibilisation bu àgg dans chaque ménage mhm. et c'était ça qui était l'enjeu ça a pris du temps oui. parce que effectivement cent mille masques mhm. du lu ndaw lu bari la mais euh, l'idée c'était aussi ñu àgg dans chaque citoyen da Djiddah Thiaroye ko xaña di am ñoo xam li nga fekk ñu ñu ñu dem liggéeyi woon ko ni nga mairie baa ngi seen mairie baa ngi seen wet uh-huh. mais mairie bi mi ngi lay sensibiliser uh-huh. encore une fois commune approche communauté da ci am solo uh-huh. il faut que ñi mën a wax ak askan wi nga yónni leen ñu wax ak askan wi muy bàjjenu gox bi muy association de jeunes bi muy délégué de quartier bi muy imam bi ñooñu ñu nekk des relais de communication waxtaan ak seeni nit véritablement nit ñi xam ni. Mhm. ah li bi def. Mhm. da koy def ngir aar. askan wi nga xam ne. Mhm. yàlla sunu borom aussi nag moo ñu ko dénk. kon 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 loolu daf ñuy may porox ndool ñu waxtaanee ci projet bi. Mhm. moom junj na ko. Mhm. kon mu nekk benn approche bi nga xam ne yéen moom ngeen bëgg a ñëw indi comme ñu ne ay cas communautaire. riposte communautaire la war a doon naka la mbir mi juddee ba ngeen bëgg a jëmmal li ni mel. waaw ni mu juddoo mooy xam nga EMAD dafa am dafa nekkoon depuis presque quatre ans voire six ans du moins. Mhm. ci lutte contre tuberculose bi. Mhm. nekkoon ci onze districts. Mhm. maanaam les quatre de de du département de Dakar nord. sud ouest ak centre. nekk aussi district jam Diamniadio ak toute la région de Diourbel. foo xam ne fu nekk dañ fa daan am. un superviseur. Mhm. ñu former nit ñi mais innovation bi mooy. dañuy mhm. contractualiser ak OCB bi. mu nga maire daf ko wax léegi montre yu baax ñoo bokk heure. Mhm. gox bu nekk damay faral di ko wax ndënd bu nekk ak galañ bi koy tëdd. gox bu nekk ak ñi mën a wax ak gox bi. parce que y a la dimension sociologique dans la communication communautaire. ñu nekkoon nag ci euh, ni ma la ko waxee léegi xeex tuberculose. soreewul lool ak mbas mi ci ni mu tëddoo. moo tax bi mbas mi ñëwee. ba EMAD ànd ak plan. lim njëkk a def mooy am ce qu'on une représentation. seet ñi nga xam ni suñu porté communication bi dana am ñu bàyyiloo xel. ñu nekk nag ndakaaru ku ne ndakaaru ni grand serigne de Dakar. ñu seeti ala Abdoulaye Makhtar Diop. impliqué ko mu porter un combat. parce que su waxee. am na fu muy yóbbu wax ji. mais comme mbas mi du lu bees la ñu ni nañ jëli ku mel ni euh, l'honorable député Moustapha Guirassy nga xam ne daloon na ko mhm. mu nangu ko assumer ko am ci une attitude boo xam ni. Mhm. jamono yi nit ñi di daw. ñu xool kooku salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi. waaw soxna si ñu ngi lay ziar tur bi foo ñu woowee. delloo ziar bu wér. Mhm. Euh, man dama bëggoon participer ci émission bi. acca une minute rek wax ji. Mhm. allez bisimilah. alo ñu ngi lay déglu. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. yaa ngi ci biir waaw. waaw maa ngi tudd Astou Ndiaye. Mhm. dëkk Jidda Caaroy Kaw. Mhm. donc maa ngi jaajëfal nag waa plateau bi. jërëjëf. di nuyu suñu meer monsieur le maire docteur Cheikh Dieng. Mhm. vraiment di rafetlu aussi émission bi. jërëjëf. donc juste rek dama bëggoon indi sama participation par rapport ak émission bi. donc ma bokkoon nag ci ndaw yi nga xamante ne woon dañ doon dugal masque ci quartier bi. bokk ci commission bi. donc mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ne def nañ ko au niveau de Djidah Thiaroye Kaw mhm. te ki am initiative bu rafet boobu muy le maire docteur Cheikh Dieng mhm. parce que moom moo am idée defar cent mille masques ànd seeg l' association des tailleurs de Djidah Thiaroye Kaw ñoom tamit vraiment ñu porter volonté ne dañuy jàppale maire ci mbas bi ci liggéey bi nga xamante ne maire moo ngi koy def mu nekk liggéey bu am solo ba mbas bi démarré ba tey mhm. donc nag maire nañu nag damaa bëgg masques yi dugg si dans les soixante-six quartiers de de Thiaroye Kaw te bu fa duggee na ngeen liggéey chef de quartier ba fa nekk les notables les jeunes mais surtout également les femmes te maski yi bu mu yem si quartier bi kese na dugg kër par kër parce que damaa bëgg sama population protégée wu feebar bi donc ñu ko fiy jaajëfal bu baax di jaajëfal également association yi nga xam ni dañoo porté volonté jàppale liggéey boobu maire les jeunes ñu ngi leen si jaajëfal bu baax parce que kenn fayu leen dañoo ñëw jàpp gis ni maire mu ngi def liggéey bu rafet mhm. liggéey bu may mucc ayib ñu ne ñun dañuy ñëw jàppale le maire ci mhm. combat bi nga xam ne mu ngi koy mënee ak Djidah Thiaroye Kaw mhm. donc ñu ngi jaajëfal jeunes yooyu bu baax également di jëfal di remercier nag bu baax a baax a baax la maire docteur Cheikh Diaw parce que vraiment gis nañu liggéeyam gis nañu taxawaayam ak kanam parce que ba mbas bi commencé ba tey def na ay jéego yu ama ama ama am solo tey jii bu ñu amee satisfaction générale de la population donc c'est grâce à lui parce que da koo def liggéey bu rafet liggéey bu set donc ñun en tant que jeune dañ koy témoin di ko jaajëfal di ko wax ni bonne continuation taxaw na Djidah Thiaroye Kaw bu baax a baax a baax rëccuwuñu vraiment li ñu ko doon tegee ci suñu commune donc mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax a baax di la wax jaajëf monsieur le maire merci beaucoup merci et bonne continuation day wane ni firnde la rek mais ñu ngi dinañ si ñëwaat léegi léegi dañuy bàyyi Moussa Daaneel yaa ngi woon ci ponk bu am solo. waaw mu mhm. mel ni li ma la waxoon léegi. Mhm. bi ñu tàmbalee ci le symbole. Mhm. ñu dem ci approche. Euh, ndaw si génn léegi. ñu koy jaajëfal ci wax ji. ak félicité maire. mais approche boobu mel ni. gise wuñu ak ji decaare kaw. mais ñoo ko niroole. ndax emat euh, ne naa la mu ngi woon ci tuberculose bi. bi mbas mi ñëwee nag. mu réorienté benn équipe médical insister sur la formation parce que yónni nit mu wax am na solo mhm. mais jox ko la technicité du discours mhm. et préparer ko et choix kii wax dafa am solo mhm. ñu ni dañuy jël dans chaque quartier dix personnes dix relais communautaires cinq yi nekk ñëpp ay jeunes parce que en réalité il faut laisser aux générations de parler à leur génération proximité bi da ci am solo dage mais aussi proximité de vécu bi parce que xam nañ ci koñ yi les gens s'accompagnent par bande de génération mais ñun nañ ci boolee mag ñi aussi ci mag ñi bàjjan yaa ngi ci bàjjan de gox yaa ngi ci euh, relais relais communautaire yaa ngi ci pour que ñu dem maintenant li ñu def mooy quartier bu nekk ñu fexe toucher fa quinze ménages mais pour faciliter l'écoute ak l'intérêt ñu ni ménage bu ñu dugg dañ lay yóbbaaleel benn kit d'hygiène wax ak yow discours bi mu ci ëpp solo. Mhm. mais pour t'encourager. à maintenir le discours et propager ko. ñu ne fu ñu ci dem danañ fa bàyyi benn kit. dañ la jox bassine booy raxasoo jox la euh, saabu jox la masque accompagner la dans ça. Mhm. pour que yow itam. Mhm. njaboot gi nga mën leen conscientiser. mais quartier bi aussi nga jouer fa rôle. Mhm. donc ñu nekk sur sept districts. parce que mbas mi kat. dëgg la naam fu ne lay walle mais ni mu mel Dakar melu ko fenn. moo tax ñu nekk d' abord au niveau du départ département de Dakar. district sud. centre ouest nous sommes à Guédiawaye à Pikine à Yembal ak. ba si ci docteur Cheikh Dieng. Mhm. donc ñu ngi ci soixante quartiers. la mat jëlal boppam. Mhm. ni combat bi dinaa fexe au moins. dans chaque quartier. Mhm. ma atteindre fa. Euh, soixante quinze ménages. jël di une équipe de dix personnes. formées préparées équipées avec tout le dispositif pour jàppale askan wi. ñu dem donc ce qui va faire que ni. minimum quatre mille cinq cent ménages. vont être touchés. muy nekk on va mobiliser six cent relais. yoo xam ne ni formé nañ leen prépare nañ conscientiser nañ leen. Mhm. pour ñu mën a dugg. Mhm. loolu moo tax bi mhm. biñ ko defee. ñu ngi dox di évaluer nag parce que mais ba léegi ñu ngi xool. lan la ñu war a yokk. comme mbir mi demagul. dañu war a dund ak moom. moo tax aussi ñu dem ji ay kaw. parce que donc ay ànd ak euh, plan international bi nga xam ne mu ngi fay yëngu. di jàppale ay ndaw. ci surtout ay xale yu jigéen ci seen nekkin ak seen dundin foofu itam am nañ fa cinq quartiers yoo xam ne bëgg nañ fa dugg waaye loo xam ma demba ma demba gën laa xam boppam kañ fa fekk muy jàmbaar nekk ci waaru yi lool lool lool c' est une manière de l' encourager est une manière de donner exemple ñiy liggéey ñi jar a jàppale donte plan amoon na fa programme mu ngi fa mhm. emat ak plan ànd donc ci combat bi consciente nit ñi conscientiser nit ñi mais ni ko docteur waxee mhm. le discours il est important mhm. aussi ki ngay sant na bëgg parce que yónni nit mu distribuer ñëpp gis na ñu koy defee léeg-léeg nga yónni nit nam la koy joxee sax tu n'es même pas intéressé mm-hmm. wala ñu jël ko bazardé ko mais approche quartier bi mm-hmm. ñun emat mm-hmm. moom lañ def moom lañ fekk docteur Cheikh Dieng def ko ba réussir ko ndax ku xam territoire am ni mu mel ni mu nekkee en frontière avec plusieurs communes il arrive à gérer la vraiment euh, maladie bi de manière responsable waa ñu jël kële gi door daaneel ñu ñëw aca salaamaaleykum salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar di la nuyu bu baax ñu leen di nuyu di leen ziar di rafetlu plateau bi. Mhm, tur bi. maa ngi tudd Alpha Oumar Diallo. Mhm. dëkk gii de Thiaroye Kaw. jërëjëf Alpha bisimilah ñu ngi lay déglu vraiment li taxoon ñu participer ci émission bi mooy dañu dégg suñu maire tey ci plateau bi. Mhm. ndax li tax tey ñuy am sawarte pour participer ci mooy dafa poser ay actes yoo xamante ni. vraiment tey gii de Thiaroye Kaw yëpp a ngi te yeneen communes yi nga xamante ne ñoo nekk ci banlieue bi aussi ñëpp ñu ngi ciy bàyyi xel. Mhm. moo taxoon tey jii ni ñun en tant que habitant de Djiddah Thiaroye Kaw ñuy am sawarte pour dugg ci biir ci plateau bi. Mhm. participer ci émission bi pour féliciter suñu maire. Mhm. parce que nag acte yi nga xamante ni ko dafa nekkoon loo xamante ni mën nañu bi mu tàmbalee si mu tàmbalee ba fi mu toll nii actuellement bàyyiwul loxoom benn yoon. parce que dañ koy gis bi nga xamante ni mbas mi dugg na bi mu taxawalee comité yi nga xamante ni comité communal bu Covid BTK. Mhm. tey taxawaay bi mu ci am ànd seeg les délégués de quartier ànd seeg les sensibilités. Mhm. tey ñu ànd pour xeex mbas mi. Mhm. boobu ba léegi ba nga xamante ni tey jii nii maanaam pour de masque yi nekk obligation taxawaay bi mu ci am ànd seeg tayeeru jibe caaroy kaw yi. ba bi nga xamante ni tey école yi ubbi na. tey ministre euh, le président jël dogal ni école day ubbi taxawaay bi nga xamante ni amaat na ko ci. Mhm. si ko loolu bi nga xamante ni école yi war na ubbi. Mhm. mu amoon cinquante jeunes yoo xamante ni man mii ci la bokkoon yu engagé wu. Mhm. pour ñëw ba ci moom envers la mairie waxtaan ak moom ne ñun engagé wu nañ monsieur le maire pour. nettoyer école yi nga xamante ni vingt neuf établissement yu nekk au niveau de la commune de Djiddah Thiaroye Kaw ci kaw loolu aussi bi nga xamante ni loolu weesu na gisaat nañ tamit mu demaat àndaat ak service d'hygiène ànd ak commission bi nga xamante ni ñooy commission environnement bu Djiddah Thiaroye Kaw. Mhm. duggaat ci biir vingt neuf établissement yi des désinfecté ko. Mhm. seetaan naat nañ aussi gis ko muy distribuer ay masques jox école yi nga xamante ni ñoo nekk au niveau de la commune de Djiddah Thiaroye Kaw. Mhm. élèves bu ne yëgoon nañ ne am na deux masques. enseignants yi aussi amoon nañ deux masques. ñu àndoon ak aussi. kit d'hygiène yu am solo yoo xamante ni tey jii nii biñ koy seetaan déggoon nañu waa IEF ak IA bu département de Pikine rafetlu. Mhm. maanaam taxawaay monsieur le maire ci Covid 19 bi. Mhm. kon loolu nekkoon li nga xamante ni lu am solo la. Mhm. loo xamante ni tey population de Djiddah Thiaroye Kao yëpp teg nañ ci seen bët. rafetlu ko. kon vraiment ñu ngi koy ñu ngi félicité monsieur le maire bu baax a baax. di ko xamal ni mbas mi jeexagul. fi mu jàppoon na na continuer foofu noonu parce que tey am na ay maire yoo xamante ni tey jii nii. ñu ngi ñu ngi jàppale tey seeni i commune mhm. à travers yenn district de santé poste de santé yi mhm. mais moom yemul ci poste de santé yi rek parce que poste de santé yi jàppale na leen mais dafa jàpp ni mbas mi ci biir nit ñi la nekk ci biir kër yi la nekk mhm. ci marché yi la nekk tey moo tax bi mu jàppalee hôpitaux yi ba pare dafa dugaat ci biir kër yi dugaat ci biir marché yi sensibiliser leen ba pare jàppale leen ci ay kit kon tey loolu nekk loo xamante ni lu am solo loo xamante ni bépp maire war na see bàyyi xel ñun aussi population de Djiddah Thiaroye Kao ñu am si satisfaction bu baax a baax. Mhm. vraiment aussi gunge ko ci combat bi. Euh, vraiment foofu la ñuy wàccee kàddu gi di féliciter encore monsieur maire bu baax a baax di ko xamal mu jàpp rek te woo bàyyi ndax mbas mi jeexagul mu ngi fi ba tey. Mhm. am na solo am na solo monsieur le maire dina am benn ponk juróomi simili ñu la jox nga sant waa Djiddah Thiaroye Kao yëpp. booy jeexal mais dañuy bàyyi Moussa mu jeexal ci point bi. après moom mu ñëw naka la accueillir tey wala gisee projet li nga xam ne moo jëm ci EMAD bi nga daaneel. voilà pour fi may daanelee rek. mooy mhm. euh, la dimension de la communication. Mhm. nee naa la ni relais yi. Mhm. fukk lañ par quartier. mais fukk yooyu da nga leen di boole si ce qu'on appelle. free talking. dañ leen di créer benn groupe WhatsApp. ñoom ak bàjjenu gox ba nekk ca koñ ba. ñoom ak ACP ba nekk ca koñ ba. ñoom ak relais communautaire ba nekk ca koñ ba. ok salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw ah, soxna si tur bi ak foo ñu woowee. asalaamaaleykum. ñu maaleykum salaam. man la Badiane Khady Guèye. Badiane Khady ñu ngi lay nuyu di la daral jàmm. Mhm. bisimilah. man maa ñëwoon doon leen remercier seen plateau boobu. jërëjëf. doon wax ak Moussa Diakhaté. Mhm. Diakhaté Kaba yéeri Ndiémé. Mhm. di nuyu sëñ euh, docteur Cheikh Dieng. di rafetlu kàddu Moussa Diakhaté mhm. Moussa buñ ko jëlee jox ko porte parole u Eman mhm. yaakaar naa ni dina ci génn ndax ku maîtriser situation bi la mhm. ndax yaakaar naa ni euh, bu ñu nee Covid 19 niñ ci war a taxawee ci communautaire bi ni ko Moussa waxee noonu dëgg la ndax yaakaar naa ni jaxate allo ñu ngi lay dégg bu baax yéen a may dégg bu baax a baax waaw foofu mu teg wax ji foofu la. ok ndax état ci boppam ñoom ñoo war a def. Mhm. ñoom ñoo war a wàccee. Mhm. ñoom ñoo war a xam ñan la ñuy waxal. Mhm. pour ñu war a wàcc ci communautaire bi. communautaire da nga koy jox communautaire macha allah. Moussa. sa taxawaay rafet na jaxase ka ba yéeri ngéeni kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax a baax a baax. jërëjëf. rëcc na ñu ngi koy jégalu Moussa si vous permettez ma jox euh, euh, docteur alors projet bi comme ni ko Moussa junjee ñëw na yegg si na sa commune dafa mel ni dafa fekk si taxawaay bi nga xam ni amoon nga ko ñoom ñu ñëw fekk si leen. tout à fait donc euh, damay bëgg féliciter bu baax a baax euh, remercier Assou Ndiaye. Mm-hmm. bi njëkk a dugg. Mm-hmm. c'est une jeune étudiante. ok xam ni biñ teyee école yi. Mm-hmm. moom dafa futteeku SME. elle mise au service de sa communauté mm -hmm. donc distribution masque yi mm par quartier kër par kër moom dafa bokkoon si ñi nga xam ni donc ñoo porté woon boobu activité hmm. mairie hmm. moom ak jeunes yi ci àndoon yëpp hmm. ma profité félicité leen remercier leen bu baax a baax alpha bi mujj dugg tamit dafa am benn dimension bu am solo bu mu indi mu li wane rek ni li ma koy waxee au départ mbas mi il faut mu nekk lu nu jëlal boppam xeex bi pour que ñu mën cee réussir parce que biñu nee dañuy dañuy tijji école yi donc c'était euh, la première tentative d'ouverture des écoles dañ ñëw ci deuxième bi sax donc booba. ñun dañu ñun jiddi caare ko. dina jël suñu responsable lépp li nga xam ni. dina aar suñuy doom. muy élèves yi dina aar suñuy enseignants dinañ ko mettre en place. donc y a des y a des jeunes. cinquante jeunes. qui se sont manifestés spontanément. kooku mu ngi insister ñu jël ko. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar tur bi. maa ngi fay maa ngi tudd Cheikh Omar Gueye dëkk Dakar Plateau. Mhm. Cheikh bi dafa daf ñu xoj. du yàgg du yàgg voilà c'est juste pour mhm. Mhm. maa ngi dégg sëy yi naan. presque jeté na l'éponge. presque maa ngi dégg communication yi donc fu fu ñu demee ba ki ñu yaakaar ne jeté na l'éponge. ñun war nañu xoolaat suñu bopp gën a jàpp si mbir te xam ne la l'affaire là c'est une réalité. ok conscience bi ñu si waroon am. Mhm. ba tey amaguñ ko. Mhm. ñi nga xam ne ñoo si war a jàpp jàppaguñ si. ñu gisee mhm. ONG bi mel ni plan ak EMAD di si jàpp ñëpp si war a jàpp. di gërëm nag monsieur le maire boobu ngeen toogoon ndax moom ñëpp si ko fekk. ñu ngi dégg toutes les actions qu'il a à depuis le début jël ay tailleur dugal leen di ñëw ay masque di jox ay xalem di raxas di defar foo foo jomb di taal rek yaa ngi si ay lavage ñu ko. ñu ngi ko siy gërëm bu baax ne maire yëpp def comme moom. jàppale seen population. Moussa Diakhaté moom du ma bëri si moom wax du bëri ndax moom c'est un homme du sérail si loolu la bokk. Mhm. mu ngi si def mhm. ko sant. di wax ne daal nañu conscientiser dëgg dëgg dëgg population yi. Mhm. ñu xam ne mbir mi. doy na waar grave na te inconscience bi nga xam ne nit ñi moom la ñu àndal war nañu si jàpp xool naka lañ ko fiy jëlee. ngir bi moo ñu fay jógee incha allah rabi loolu laa amoon loo ciy wax. jërëjëf kaddu yi rafet na monsieur le maire ñu bàyyi la nga continuer. kaddu yi rafet na trop vraiment ñu ngi koy bu baax a baax. ni de montrer l'importance mhm. de la dimension communautaire de la lutte il faut mu nekk mbir moo xam ne mhm. askan ni moo koy jëlal boppam mhm. donc bi ñu dañuy ubbi école yi ñun mën nañu jënd matériel bi mais mais as mais bu cinquante jeunes taxawee monsieur dañaa bëgg a jàppale parce que école yi ñuy ubbi il faut que comme tëj nañ ko depuis plus de trois mois ñun dañuy volontaire pour dem nettoyer classe yi donc ñu jox leen les moyens en termes de râteau de de bale et cetera. <laughs> ñoom ñoo nettoyé école primaire yi ak école publique yi. <laughs> ak école privée yi. yëpp parce que on a vingt neuf établissements au total yi nga xam ni ñu ngi biir de Thiaroye Kaw. <laughs> sept yi nekk ay public vingt deux yi ci des nekk ay privé yooyu dañuy dañuy dugg ensuite ñu doog fa jaar service d'hygiène service jeune bi ñu nettoyé ba pare mu ñu jaar pomper classe yëpp mairie bi def les moyens. Mhm. joxe les moyens au service d'hygiène qu'il faut. Mhm. pour que mu def boobu. kon yow teel nga adopté projet EMAD bi ñu ñëw rek nga ànd ak ñoom ci mbir bi. et c'est ça qui est important. Mhm. c'est-à-dire que man j'ai dañ ma fekk ci waar wi. proposé ma ma accueillir ko avec beaucoup de plaisir. Okay. parce que dama gis ni. démarche bi ñu am. fekk nañu ñun moom la ñu am. donc. ma wax fa dëgg yàlla. maa ngi doog a gis ONG et ça dafa nekk lu manque ci stratégie gouvernement bi et ça aussi qu'il faut déplorer. parce que a quand même de beaucoup d'ONG. yu yàgg ci travail communautaire. le ministère le ministre de la santé. mënta porter. le combat communautaire de la de lutte contre le il faut que nécessairement. mu impliquer ñi nga xam ni. am nañ ci expertise am nañ ci expérience yàgg nañ ci parce que ñoom dañoo yàgg. di mhm. liggéey ak les communautés. le fonds force Covid. Mm mais devait servir à ça. à financer des ONG. Mhm. pour que ñoom ñu ñëw porter le combat. wàcc ànd ak mairie yi pour que ñu mën a waxtaan ak mhm. askan wi. mën a encadrer aska askan wi. mën a xamal askan wi. mën a ànd ak askan wi. pour que askan mën a aar aar seen bopp. ok am na solo et c'est en ça mhm. moi j'ai bien aimé approche Emad di dire. Mm -hmm. nous allons dans des ménages. Okay. donc Moussa Diakhaté l'a dit tout à ils ont ciblé. Mhm. soixante quinze ménages ménages mhm. dans chaque quartier. et moi j'ai dit au niveau de Djeddah Thiaroye Kaw. duñ ko def par soixante quinze ménages. jëlee benn quartier dañuy jël quartier bi ba mu mat. ok vous allez aller au-delà. Au, on va au li nga xam ni ONG mënu koo def. mairie bi dina ko dina ko mottali. ok pour que quand on prend. un quartier doo jël bii ménage bàyyi bee ménage. mais da nga koy maasale parce que l'idée pour nous. c'est ñu jàng ci EMAD ci seen démarche bi ñuy def. ci seen communication bi ñuy def. ci appui technique bi ñuy def pour que bu ñu paree ci cinq quartiers yooyu. Mhm. ñun ñu mën koo. continuer euh, li ñu wax upscaling mhm. ñu mën a continuer projet bi mhm. def ko au niveau de l' ensemble de la commune de Djiddah Thiaroye Kao mhm. parce que quoi qu'on dise et ça je pense que le président Macky Sall l'a dit il faut que nit ñi xam ni donc c' est une réalité c' est vivre avec le virus ni ko président Macky Sall mais pas relâchement mais mais par contre discours président Macky boobu àndul ak action bi gouvernement bi di def. dañu lajj parce que buñ ne ah oui sur plan yu bari. Mhm. vraiment le gouvernement a échoué. Mhm. dans sa stratégie de lutte. Mhm. parce que effectivement. wax naa ko léegi. ñañu fa ñu waroon jaaree jaaruñu fa. le ministre de la santé. donc dafay dem jëlul utiliser wul les moyens. communautaires à sa disposition. mooy les associations de jeunes. les ASC. Hmm. les les les ONG. bàjjenu gox les bàjjenu gox. les les femmes mbootaay. Hmm. ñi nga xam ñoom ñëpp ay relais efficace de communication la. Hmm. fa ñu waroon dugal. 64 milliards yi nga xam ni moom lañ jox ministère de la santé. pour ñu xeex mbas mi. fa dëgg yàlla foofu laj nañ fa. laj bu laj bu rëy. en terme un peu de développer. Okay. une stratégie cohérente. et une stratégie qui implique qui mm-hmm. responsabilise la population mais au contraire ni ñu ko gisee mm-hmm. c'est en fait dañoo bàyyi tey boo gisee gouvernement bi mm-hmm. président Macky Sall da cee raxas loxoom da cee da cee en fait il était le général en chef nekk ci kanam jekki-jekki ni bàyyi na <laughs> parce que pression religieuse bi pression économique bi c'est vrai. Mm-hmm. c'est vrai mm-hmm. c'est-à-dire que c'est pas facile. Mm-hmm. duñ ko sànni xeer ci loolu. mais dañ ni aujourd'hui euh, aar askanu Sénégal. daf ñoo war ñun ñun ku ci nekk. nous n'avons pas le droit. de laisser le président seul au combat. Mm -hmm. nous ne nous nous sentons aussi responsables. que le ministre de la santé. mi donc le le porte-flambeau. Mhm. de la lutte sur le plan mhm. sanitaire. mais nag boo boo gisee ministre de la santé mu nekk au front. Mhm. tey on dirait que le gouvernement est en vacances. da jàpp moom rek moo nekk ci kanam. le ministère de l'hygiène devait être au au premier plan de la lutte. gisoo ko l'UCG devait être au premier plan de la lutte. nga dañu xaw a laqatu. gisoo ko. Mhm. ministre de la femme devait être au premier plan de la lutte gisoo ko. Mhm. ministre de la jeunesse devait être au premier plan de la lutte c'est-à-dire que tous ces ministères là. Mhm. dans leur dañoo waroon transformer seeni programme def ko ci en fait euh, as accès ko. seeni compétence ci les secteurs. Euh, sociaux les acteurs. sociaux mmh. yi nga xam ni ñoom ñoo war a nekk seen relais pour que ñu jàppale ministre de la santé ci combat bi muy def mais pas que ñoom ñu dem toog mmh. ni affaire ministre de la santé la mmh. c'est vrai am na dañ koy bàyyi ak technique important mais nag ñoom ñëpp vraiment dañ ko waroon a gunge mais ce qu'on a vu c'est un gouvernement en vacances un gouvernement qui a démissionné bàyyi le seul ministre de la santé au front de la lutte moo tax ñun en tant que maire ministre de la santé da koy def au plan de son ministère. Mhm. ñun dinañ def ba mottali li nga xam ne defu ko. Mhm. au niveau de notre commune. Mhm. en mobilisant les acteurs communautaires ñu gunge ñu. ci li nga xam ni moom la ñu moom la benn question balaa may dem ci Moussa le vingt cinq école bi ñu ne dañ koy ubbiwaat dégg nañ ministère bi ci tournée bi nee na bi yoon du ñu daaxaat date bi est-ce que nekkul itam lu ñuy forcer. ngir euh, delluwaat ci li nga xam ne moom moo jëm ci njàng mi nekkul lu ñuy xaw a forcer tuuti. waaw bon euh, je, je te question bu am solo la. Mhm. parce que man bañ koy jëkk ubbi. au niveau de Djeddah Thiaroye Kaw. Mhm. techniquement. du point de vue du protocole sanitaire. Mm toutes les écoles yëpp pare nañu. ci sa système bi. ci pare nañu. Mhm. ci protocole sanitaire bi nga xam ne moom la ministre de la santé joxe. thermoflash yi hmm. muy raxasukaay yi muy lépp li muy masque yi le la mairie de Djeddah Thiaroye Kao jël na en charge hmm. fournir vingt neuf établissements yi hmm. muy privé yi du public yi ba mu jeex ñun ñoo ko gàddu ci suñu budget fournir ko entièrement mais je veux dire foofu le ministre de la santé aussi dafa le ministre de, de l'éducation dafa lajj parce que boo amee trois mois pour préparer ouverture cas Mhm. parce que bi ñu ko tëjee rek. Mhm. moom la waroon commencé préparer réouverture bi. si ci erreur yi ko xam ni donc école tëj nañ. Mhm. dinañ ubbi bu ñu ubbi yan condition la war a régler pour ñu pour pour ñu ubbi ko. il prend les précautions les mesures qu'il faut. ok wante ce qu'on a vu. cest à dañ koo bëgg a ubbi décharger seen responsabilité ci maire yi. et c'est ça qui pas juste. parce que les collectivités territoriales. ñoom ñoo gën a impacté wu ci Covid bi. ok seen i finance doxatul. Mmh. parce que les marchés sont désorganisés. Mmh. les commerces sont désorganisés. les taxes président Macky Sall mooy ni. Mmh. may na différé ñi waroon a fay yëpp ñu dem bu mois de juillet doo ko fay. yow en tant que la nga war a am amoo ko. combat bi depuis le mars vraiment. Sénégal gépp dañoo war a sargal. Mhm. dañoo war a tàccu. Mhm. dañoo war a remercier seeni maire on a vu que les maires au front. Mhm. mais pas les ministres. non non pas le gouvernement c'est que c'est le gouvernement en général. a démissionné. de sa fonction. Okay. donc boo gisee maires yi pendant trois mois. ñu nekk au front mais au bout de trois mois dañuy dañuy dañuy xoox c'est normal. donc le ministre de la sa le ministre de l'éducation. devait dans le cadre de force Covid du fonds parce que on a mille milliards yoo xam ne sénégalais yi ñoo ko moom. Mhm. mille milliards le prétexte de la constitution de ce fonds. Mhm. mooy la maladie. donc dañoo war a servir. Mhm. lépp lu jëm ci maladie bi ba pare. doo a xool leneen. parce que parce que la la question. elle n'est pas une question économique. d'abord. elle est d'abord fondamentalement une question sanitaire. donc quand on a fini de régler le problème sanitaire. Mhm. ñu doog a xool nag lekk la question de la relance économique. Mhm. la question de et cetera. Okay. donc ci question sanitaire bi. Oui, mhm. c'est là où le ministre de de l'éducation devait se battre. auprès du président de la République. pour que le gouvernement financer entièrement. la réouverture des classes. xam nañ. il y a combien d'écoles. il y a combien d'élèves. donc le et le ministre de l'éducation prépare tout le matériel nécessaire. Mhm. yóbbu ko ci école yi. Mhm. au lieu que muy déléguer responsabilité boobu. Mhm. maire yi maire maire yi ko def. école mën nañu ubbi. mais maire yi ko defut. seen école du ubbi. école de eh, day am difficulté ñu ubbi. te mënuñoo ubbi yi commune. parce que mair bi def def na des efforts. satisfaire protocole sanitaire bi. Mhm. ñu bàyyi d' autres mhm. parce que le maire n'a pas pu. et les maires qui n'ont pas pu c' pas par mauvaise volonté. Mhm. c' parce que la commune a été aussi impactée par le Covid. que les que. tous les autres secteurs économiques. monsieur le maire dinañ ñëwaat ci yow léegi dañuy wax rek Moussa dégg nga li mu wax kon mel na ni euh, jug jot na te itam la nga xam nag lu ma ci bëggoon euh, ñambaasaale rek mooy euh, dégg nañ ni benn projet euh, ñu ngi koy waajal ca commune bu dakaar Plateau changé tour rue yi loolu dañ koy boole rek ak question Covid bi tey fu ñu tool nii lan ban ban taxawaay lan war a am nga ñambaasaale question boobu rek. waxta bi dab nañu. taxawaay bi ñu war a am mooy ni ko mm-hmm. docteur waxee. Mm-hmm. nga may ma rek ma gërëmaale dafa am ñaar ñu woote. Mhm. kenn ki di Cheikh Omar Gueye. Mhm. di nekk un acteur communautaire. 93 mhm. ba léegi. mu ngi ci centre de santé yi. nekk un expert. di ko sant ci wax ji. di sant aussi la dame bi wax léegi Adja Khady Gueye. qui est la présidente des Bajenu Gox du district sud. ñoom itam di leen jaajëfal ci mm-hmm. xeex bi ñuy xeex mm-hmm. taxawaay bi mooy mm-hmm. état forme de communication bi mu def efficace moo tax stigmatisation am moo tax nit ñi di daw nañ bàyyee ñi ko mën te dëkk ak gox yi parce que bàjjenu gox yi comme EMAD comme ñeneen dañu yàgg jege askan wi di wax ak ñoom ci kaw sutura ba tax na kon taxawaay bi ni ma la ko waxee léegi créer des espaces de dialogue et de surveillance. Mmh. continuer la sensibilisation. def une approche quartier. ba pare état tam ñëw accompagner. Mhm. ñi nu mel. Mhm. dans cette lutte moo tax euh, docteur. Mhm. dama ni ko moom il est xam naa ni du ñàkk ci ay bés. suñu ubbee ñu woo ko ca emad. lii mu wax ni ñu invité ay maire ak ñi bëgg doon maire. mu waxaat ko bamtuwaat ko parce que. xëy na jikkooy soldat gi mu doonoon enfant de troupe bi la. ex colonel bi la xëy na moo tax consort. maintenant li nga wax ci affaire euh, tuddee rue yi. dafa bokk ci loo xam ne dafa nekk ci un programme de l'EMAD mhm. EMAD boo seetloo moom dafa travailler pour que mhm. tout ce qui est euh, mémoire culturelle mhm. ñu koy suqali ci gox ak goxaat yi mhm. Mhm. donc woote ci waxtaan wu ni mel mhm. defe naa ni day fekk si emaat ci li mu gëm mooy ni développement pour mu am ci cela gi foog mu nekk suñu aada cosaan donc bokk na ci un programme de l'EMAD ñu ñaan yàlla buñ ci àggee rek mu jariñ ñëpp waaye guddi yi ñu toll aali ji mooy taxaw temm xeex mbas mi ok docteur benn kàddu presque waxtu bi xoj nañu dep euh, waxtu bi jeex na tàq daanaka dañuy wax rek en un mot boo ko mënee tënk ci une minute littoral bi coow li bëri na environnementaliste nga lan moo ci sa gis-gis ci wàll wi ni mel ci bu noo xam ci tënk rek <laughs> ndax wa waxtu bi xoj nañu moom daanaka jeex na tàkk tàkk tàkk d'accord je te remercie question bu am solo mhm. euh, nekkoon na loo ni mhm. moo nañ ci waxtaan lu yaatu mhm. mais déjà ci liñ jóge ci tuddee rue yi mairie ji de Thiaroye ko commencé na ko depuis déjà quatre ans ñun tey bu gisee école six tuddee nañ ko école fan Ndiaye Ndëpp école euh, école vingt sept tuddee nañ ko le premier maire de Djeddah Thiaroye Kaw muy Cheikh Tidiane Anne mhm. am na ay sunu kilifa mhm. yi dëkk Djeddah Thiaroye Kaw nekkoon mhm. ay kilifa religieux ñu jël ay avenue ay rue tuddee leen ko ko et ce mouvement se poursuit tey je suis heureux bi ma xëyee tey ci suba lire benn communication le maire Alioune Ndoye que je salue au passage qui est mon grand frère qui est mon ancien du prytanée militaire mu jël initiative bi créé benn comité donc pour tuddee rue te ma ma ma ko wax nag. Mhm. plateau. Mhm. dafa nekk capitalu Sénégal. Mhm. waaw du loo xam ni waa plateau ñoo ko moom. foog ñu xam ni capitalu Sénégal waa Sénégal yëpp ko bokk. kon man je revendique. donc de euh, ay ay rue yi yu nekk biir capitalu Sénégal. buñ koy tuddee. duñ ko yemale bi commission buñ ko yemale biir plateau. nañ ko def commission boo xam ne commission national la. parce que spécificité. dakaar la en tant que capital du Sénégal. loolu vraiment Moussa ma yónnee la ko ci mon grand frère Alioune Ndoye mhm. ni ko ni waat plateau rek. Mhm. moomuñu mhm. Sénégal mais maintenant li nga wax ci euh, littoral. damay distinguer ñaari ñaari ñaari. mbir façon littoral. littoral bi nga xam ne fi fi ñu toll moo ëmbee. mbir muy donc partie corniche bi. Ah, <laughs> dafay dafay wax mel na ni waxtu ji wax waxtu bi jeex na waaye dinañ la jël ci beneen studio bi kon mbokk yi euh, sant leen gërëm leen ñu jox nga ñu jox la rek nga gërëm. waa ah, mais kon euh, on n'aura pas le temps d'aborder mm-hmm. dinañ ko def beneen waxtaan. Mm-hmm. mais dama bëgg d'abord. Mm-hmm. vraiment gërëm leen yéen. waa mi FM. ci invitation bi nga jox jëf tey. may ñu ñu échanger. Mhm. ak waa Sénégal. Mhm. partager expérience bi nga xam ni. Mhm. commune Djiddah Thiaroye ko am na ko. ci euh, mbas mi. ci xeexu mbas mi. Euh, am également fàttali. bu mu bëgg a defaat ci waa Sénégal gépp. que ni maladie là. nañu bañ a sàggan. ba prévision catastrophiste. yi nga xam ni. Euh, Guterres defoon na ko. Mhm. ci début mbar mi. Mhm. ci début mbas mi. Mhm. mu dal mooy. ñu sàggan. ba contamination bi. àgg ci dayo buy weesu. lekk capacités très limitées. de na solo dañ doon gis. ñu naan benn mort. par semaine. wala fi ñu toll. nous sommes à près de nous sommes à quatre quatre morts. près d'une centaine de personnes qui ont décédé. il mhm. faut ñu xam ni. Mhm. notre système de santé est extrêmement faible. Mhm. no capacités sanitaires son très limitées. ok donc li ñu ci mën a génne. mooy population yi aar seen bopp. ba notre si notre système de santé du déborde dinañ ci ñëwaat incha allah may daaneel sama kàddu mhm. également ci sant bu gërëm bu baax a baax mhm. EMAD ak plan mhm. li ñu boolee jidda caare kaw ci programme bi nga xam ni moi je le vois lii laa gis ni mooy dem fii ak déwén ak ginnaaw déwén parce que bu ñu yaakaar ni feebar bi dafiy jeex en une semaine en deux semaines en trois semaines donc feebar bi luy wéy la donc il faut que ñu jël les mesures okay. donc d'organisation à la base. Mhm. pour mën a donc euh, accompagner. Mm donc protection population yi ci ci ci ci mbas jërëjëf ma bëgg également féliciter bu baax a baax. donc euh, ñi ñu toogal ci table bi. Uh-huh. muy muy vous-même. Mhm. donc euh, monsieur Mbemba. muy euh, sama sëriñ Moussa Diakhaté. ci la qualité de ce débat que j'ai observé. Mhm. sant gërëm ñi nga xam ne ñëpp. Uh-huh. dugg nañ ci émission bi. woote. muy waa plateau ak waa Jidda Thiaré sant ku ci nekk gërëm la merci gërëm la bu baax beaucoup rek Moussa te jeex na un seul mot pour mhm. dire que ni ko docteur waxee mhm. félicité ko encouragé ko mhm. di wax émat ak plan situation bi toll ñu ngi woo Sénégal ak àddina ñu ànd aar aar lu ngir mbas mi jóge fi jërëjëf mbokk yi jox leen dig daje ba dimanche incha allahu rabbi